waa chef bi ñu ngi lay siyaar. ñu ngi bëggee lu yaatu. ci la waree. waa ñu bëggoon nga présenté wu rek. waaw seen mbokk taalibe Seydina Ousmane Diallo. waa Cheikh Seydina Ousmane Diallo. ñu ngi lay bëggee bu baax di la màggal bu wér a wér. waa dañ bëggoon si bis bi rek nga ibiñu ci tuuti rek ci lan moo waral gis nga ko góor yaa tant ba pare di si baatu sikar baat lay laax ilala ak lan moo waral bis. waaw. daanaka ni ñu ko waxee rek ndax lu naan bis moom bis boo gis rek am na lu ñuy laax ci bis bi. te bisu ñett fanu weeru koor yi dafa am lu muy tegtal li muy tegtal nag mooy si ñett fanu weeru koor si la Cheikh Moussa Cissé Njambe borom daaru euh, euh, euh, amee amee ame amee maqaama yonant amee maqaama yonant amee maqaama mujjatit taxaw fi nga xamante ne tey nit yàlla yi tegoon seen tànk di jëlee jàmm ci lëndëm di leen indi ci leer nekk mujjadit waaw kon loolu moo tax ñu naan ñett fan weeru koor ndax ñu ne si ñett fan weeru koor si la njàmbe doonee rasool kon leeru rasool googu mooy leer gi nga xamante ne tey mooy fóot xolu jaam bi ba jaam bi dëkkook boromam jamono bu nekk waxtu bu nekk muy amee tawféex di amee xol bu set ci lépp ba jaam lépp lu mu jëfal yàlla yàlla nangu ko kon loolu moo nekkoon mission am ci kaw suuf mu jëlee jàmm ci lëndëm indi leen ci ci ci leer. waaw ñu bëggoon rek ci lëndëm boobu nga wax ne la jaam ñi di nekk ñi leen di andi si leer ana naka la ko euh, waa ji doon defee. waaw exa parce que dañ ne borom xam-xam yi ñoo doon yonent yi borom xam-xam ñoo doon yonent yi mais borom xam-xam yi liñ doon ne yonent yi lenn la muy muy muy xaqiqa muy tasawuf muy maarifa loolu nag nekku ci ay téere loolu nekku ci ay téere loolu mu ci dënnu góor yàlla loolu nag moom la Sëriñ Tuubaa di wax mu ne tunaalu bi ixtilaaf yi nafsil xawaa laa bi isdaar yi safoon xawaa mu ne xam-xam boobu mbóot yooyu leer yooyu ñu ngi koy amee ci saafonte bi ngay saafonte ak nit yàlla bi ak jaayante bi ngay jaayante ak moom noot bi ngay noot sa bakkan te yàlla rek tax ngir jote mbóot yooyu noonu ndax ndab balaa ñu ci def dara foog mu foog mu set ndab balaa ñu ci dara foog mu set moo tax sëñ Tuubaa ne la fa man yuridu kasfa lazi te damana yu talixi dunyaa talaxan bay nan mu a képp ku bëgg soobu ci eh, eh, mbir moom képp ku bëgg soobu ci ci ci leeru yàlla képp ku bëgg soobu ci yoonu yàlla mu ne da ngay fase àdduna fase bu bir da ngay fase àdduna fase bu bir léegi fase àdduna boobu nekkul fase àdduna mooy lan nekkul ba nga am oto nekkul ba nga sol ay yére rafet nekk ba nga dëkk fu baax loolu du fase àdduna fase àdduna mooy nga bañ a soxor nga bañ a rëy nga bañ a siis nga bañ a iñaan loolooy fase àdduna tey fo boo xoolee fi jamono toll soxorante bi ak siisante bi ak xëccoo bi li ko waral mooy bëgg àdduna kese moo ko waral bëgg àdduna kese mais bu fekkee jàmm ñi bëgg nañ yàlla te yàlla ak tax yàlla nekk seen xol ku ñu xool seen bopp la ñuy gis ci moom moo nekk loolu loolu loolu loolu loolu loolu mooy mission Cheikhoul Khadim rek ñoom ñoom nag gis nga moo tax sëñ Tuubaa waxaat la si mas si xokkal bu ko mu ne yam xo anil xal bi rey nan xat li dann su xoo maxawal mu xas li an soobe na yaa saati mu ne sang yu mat sang yi ñoom dañuy mel ni dañuy mel ni ay jongoma ay ay ay ay soxna yu baax yoo xamante ne boo leen joxee sër bu tilim sër bu tilim bu am bu am ay taas taas ba nga ko joxee ñoom dañ koy fóot ba mu set wicc lam ko ba mu passé ko ba mu rafet joxaat la ko nit yàlla yooyu sangu yooyu nag loolu mooy seen mission ci kaw suuf loolu nag loolu nag bokkul ak bokkul ak chariatul islam bokkul ak chariatul islaam ndax chariatul islam boobu moom moo moom moo mujjee juddu moom mujjee juddu moom mi ngi juddoo moom mu ngi juddoo ci fukki ci fukki at ak ñett yi yu yeneen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam woote loolu organisation la organisation la ngir kenn ba nga lor kenn ngir équilibre am ngir dal am ngir yoon am moo tax boo ñëwee ba ci ba ci biir fiq sax dañ ko xaaj ñaar dañ ko xaaj ñaar fiq bii mu amalaat la mu amalaat la bii ibadaat la léegi mu amalaat yi mooy mu amalaat yi mooy ni ñuy attee ni ñuy taqee sëy ni ñuy miraasee yaa ngi dégg loolu moy mu amalaat ci fiq nga ñëw ci ibadaat yi mooy nu ñuy jullee ni ñuy wooree nu ñuy nu ñuy nu ñuy nattee nu ñuy ajoo màkka loolu mooy loolu loolu mooy charitu islam moo tax Cheikh Moussa moo tax Cheikh Moussa wax ni borom borom bis bi borom ñett fan weeru koor yi ne maa taxale charia ak islam ndax dañoo ànd duñ benn maa taxale chariatu ak islam ndax dañoo ànd duñ benn kon maa huwa islam lan moo islam maa huwa islam lan mooy islam islaam nag mooy gis nga fi ñu doon waxee sànq si njëlbeen bi loolu mooy cosaanu diine loolu mooy cosaanu diine mooy cosaanu diine moo tax ñu ne bu jamono lëndëmee ba lëndëm nañ dellu cosaan chaque téeméeri at bu nekk yàlla dina wàcc ab mujaddid mu yeesal islaam mu yeesal yoonu islam moo tax Cheikh Moussa mu jadid la mu jadid la moom dafa yeesal ndax Sëñ Tuubaa ba mu ñëwee dafa ne dinaa yeesal dinaa dinaa yeesal yoonu islaam ba gars yi defe ni man Bamba maa ko sos dinaa yeesal yoonu islaam ba gars yi defe ni man Bamba maa ko sos mais Cheikh Moussa ba mu ñëwee lan la wax dinaa yeesal yoonu murit ba gars yi defe ni man Cheikh Moussa maa ko maa kon yoonu murit mooy islam yoonu yoonu murit mooy islaam bi yoonu murit mooy islam léegi googu nag moom lañ wax ni mu ngi ci biir baatug laa ilaha illallah islam mooy baatug laa ilaha illallah képp ku seede baatu laa ilaha illallah tamit dëgg ci yow yaa ngi ci islaam léegi seede baatu laa ilaha illallah mooy lan ci naka ngay seede baatu laa ilaha illallah ci naka laa ilaha illallah lan lay tekki laa ilaha illallah lu muy tekki mooy lan dara nekk fi dul yàlla dara nekk fi dul yàlla yàlla rek fi nekk te nekk fekk lenn huwa awalu huwa aaxiru huwa zaayiru huwa baat wa huwa bi kulli shay'in alimun yàlla moo njëkk moo mujj moo làq moo feeñ moom rek a fi nekk te nekk fekk lenn yow ngay xool di gis leneen du dul moom kon kay bokkaale fa la tàmbale kon bokkaale yàlla mooy nga gis leneen dul yàlla nga dégg leneen dul yàlla nga jàpp ci leneen dul yàlla ngay dox ci leneen dul yàlla kon loolu lay bokkaale yàlla te jàmm bi isa yàlla génn na ko génn ko inna allaha maxanaa yàlla mi ngi ànd ak yow ay na maa kuntum fépp foo la nekk kon jam yi la moo leen tere la moo leen tere la moo leen tere egg ci yàlla la moo gis yàlla te yàlla moom ki fi nekk la kon bi ci yàlla ndax moom aji nekk gi la mu ngi fi mais ci jaam ñi la li leen tere gis yàlla nag mooy seen xol yi ñoo gis nga ñoo tilim ñoo lëndam xol yooyu nag gis nga moom la mu jënd di ak seexum rab bi ak nitu yàlla ak yonent yi daan daan daan taggat daan defar ba mu baax. eggale leen ci pay boobu jaam ñooñu nekk ay jaam yu sel yu baax nekk ay ibaadu rahmaan yoo xamante ne bu ñuy dox du ñu rey sax melentaan. loolu mooy mission Cheikh Moussa Cissé Ndiamé borom daar loolu lii leneen. Cheikh Moussa wootul ay daanu rab wootul ay mbiru jinne déedéet lii la woote tawxiit tawxiit faqat la la woote te tawxiit mooy baaxal jaamu yàlla tawxiit mooy baaxal jaamu yàlla tawxiit julli bu amul tawxiit dafa mel ni jëmm ju amul ruux julli bu amul tawxiit dafa mel ni jëmm jëmm ju amul ruux dafa mel ni jëmm ju amul ruux kon su ko defee jaam ñi nañ nañ xelu nañ xelu ndax yàlla borom xel yi lay waxal yàlla borom borom xel yi rek lay waxal